bisimilah salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di sant yàlla ci jotaay bi nga xam ne jotaay lislaam ak mbokkoo rek la di ci sant yàlla bu baax te di wax comme ni ñu sëriñ bi yónnee xalifa Cheikh Mouhamadou Mahi xaadimul umma moo ñu ebal ñu ñëw fii pour bokk naqar bi nga xam ne wàccoon na fii muy ci mbënd mi nga xam ne amoon na fi mu yëg ko bu baax di ci ñaan yàlla ba bés ni ki tey mu yónni ñi pour ñu ànd ñëw pour bokk ak mbokkam xaritam muy Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké di wax ne su sañoon Madina yëpp dana ñëw comme ni ma ko waxee ndax moom elloon na loolu te relation yi dafa yàgg ci bàyyi ak maam yi moo tax wa zakkir fa inna zikraa tanfa'u mu'minin fàttali dafay gën a dëgëral jullit rek te lii li ñuy fàttali mooy li nga xam ne bàyyi ak maam yi ñu ngi ko nekkee woon su ñëwee ba jaar ci di ko def te loolu moo téye senegal ba ak agsi fii dëgg-dëgg war nañ sant yàlla bu baax mm-hmm. di roy ci ñoom ndax euh, talibé yépp sax ñu ngi mujj di roy ci diine l'islam ak taxawaay yi nga xam ne taxaw nañ ko ndax mënta sëbba bi xawmin foowa minhum yonentu mu ne képp ku niru niru lu aw nit rek ci ñoom nga bokk suñ gisee nag ñuy def lu baax di ko wax di ko jëfee dëgg-dëgg pour nga bokk ci ñoom il faut ngay def liñ doon def di wax liñ daan wax di itteewoo lépp loo xam ne rek euh, ñu ngi ko daan def moo tax ñu ñëw fii ci jokk mbokk bi nga xam ne famille yi amoon nañ ko suñ baay Cheikh ibrahim Niass suñ maam sax laay wax maam Hadj Abdoulaye ni meloon ak sëñ Touba ba mu agsi ci suñ baay Cheikh ibrahim Niass ak sax euh, ki nga xam ne mooy Cheikh El Hadj Mouhamed Zeynabou mi nga xam ne mooy bàyyi ci Seydi Arab mii ak. Euh, Cheikh Alaaji Babacar nga xam ne ba tey maam la ci Cheikh Ibrahim ñu gis ne tànk yi daan jaar ñun ñëw su ñëwee ba jaar ci dëgg-dëgg dañuy sant yàlla rek ci li ñu yàlla teg ñu ñuy roy ci li nga xam ne moom moo doon seeni seeni taxawaay loolu tax sëriñ bi ne woon ñu ñëw su ñëwee gis sëriñ bi wax ko santiment yi nga xam ne am nañ ko ci moom ak taalibe yi te mu mu ngi koy ñaanal yàlla di sàkku mu ñaanal ñëpp te ñu dem ñaanal tamit comme ni mu koy ñaanalee xale yi nga xam ne ñu ngi lancé wu ci géej gi dem ci bënd mi mu ne loolu yëpp euh, ñu jar di digal ñu jar di ñaanal yàlla lañ moo tax euh, fi mu ne xale yu bëri dem nañ te suñ doon dégg wax yi nga xamne ne mag ñi mag ñi ñu leen koy wax ni kon dinañ am muñ gu tollu ni jema muñ ba yalla dimbalé len waye nak comme ñu bari dañuy wax ne adina xaarut ken motax euh, ñom tam ñu juk pour jema dani sen doole ñuy ñaan yalla yalla leen mussel leen ba nga xamne dañuy am lu lu doy walis ñuy genn sen rew di dem di jéggaan di dañ ñaan yalla ñu muñ rek suñ rek lépp luñ bëgg incha allah dina leen fekk si moo tax mu ne woon su ñëwee buñ fàttee pour waxaale sëriñ bi ni nga xamee ne ñu ngi koy ñaanalee xale yi mu ñaanal Sénégal ba pare ñaanal jeunesse bi nga xam ne dëgg dañoo dañoo am ci ñoom yaakaar bu baax di ñaan jàmm ci Sénégal jàmm ci Afrique ak jàmm ci àddina fépp fu jullit nekk rek yàlla may la jàmm di gërëm sëriñ Cheikh abdu Gaynde Fatma mi nga xam ne gis nañ taxawaayam ci pay bi gis nañ taxawaay ci sëriñam xalifa bi waxtu ne tamit mu ngi ñëw ci madine ci di jàkkoo ak famille bi di ñëw ci sëriñ bi di ko indil e, yónnee yi nga xam ne sëriñ baa ngi ko yónnee pour jokk mbokk ku mel ni Cheikh Baye Adi ak ñi mel ni moom ci famille bi yëpp ci bëri xamante ne ak ñoom ndax loolu mooy li nga xam ne bàyyi ak maam yi loolu dañ fi nekkee woon moo tax def ko du duñ ci jëlee dara du du yokk yokkute rek a ngi fàttaliku seen mm, papa Cheikh seen Cheikh mu mus na boobu ñu ngi nekk xale mus na ñoo ñëw rek nuyu ko mun ñu yéen lii doy ma da di ñëw fekk si ma Dakar man ak suñu génération bi ñun ñëpp ñu ñëw keroog këram lañu fanaanal ba bët set lakk yeeg yooyu yëpp bi ñu dafa ñëw toog te ñuy teg mu ñuy tegal di wane ne yéen li ma sekk ak seen baay mënumaa wax yëpp sax te loolu feeñ na ndax euh, gis nañ ne demoon na ba nga xam ne am na soxna soxna si nga xam ne Cheikh Ibrahim soxnaam la woon ñu koy wax suñu yaay Ami Diang ak soxna si nga xam ne soxnaam la woon muy suñu yaay xottu jàng ñoom ñaar ñoo bokkoon te kenn ki soxna bàyyi la woon kenn ki di soxna seen Cheikh te yooyu yëpp ñoom ñaar ñoo ko doxoon loolu nag li muy wane mooy bëggante mbokk gi nga xam ne gis nañ ne dem nañ ba seen deret yi ñu boole ko mu jaxasoo ci bëggante ci ànd ci yàlla bañ a tàggoo ci yàlla loolu moo waral loolu yëpp moo tax ñu ngi sant yàlla bu baax di ñaan sëriñ bi yàlla na ko yàlla dëgëral yal na yàlla faj ajo yëpp ba nga xam ne liñ bëgg yépp danañ ci àgg ci jëmmi niñ ko bëggee te bu ñu am mm. benn jafe-jafe di wax ne ñu ngi nii rek dafi nekkoon démb moo fi nekk te incha allah waxtu wu ne rek tànk yi mu ngi gën a rafet moo tax ñu ngi gërëm di sant salaamaaleykum wa rahmatullah di la bëggee bu baax di di nuyu Jatara jotaay bi ni ko sëñ ma di waxee rek la jotaayab euh, mbokk la jotaayu lislaam la jotaayab euh, mbokkoo ci yàlla la àndoo ci yàlla xaritoo ci yàlla te ñooñu yàlla moo wax ci xadiisul qudsi ne mbëggee la mu war na ci ñi nga xam ne dañoo bëggante ci yàlla di ziarante ci yàlla di jokko ci yàlla di joxante seeni alal itam te yàlla rek tax lii gannaaw bu ko yàlla dénkaanee ndax silatu rahim la rahim ku ne xam na ne ñaar la rahim ruuxiya ak ak ak tiiniya eh, yàlla boole boole loolu ci ci ñaar yëpp ñu bokk bokk bu yàgg bu ñuy wax dañuy wax toujours ne dañuy indi mamalaaji ak Cheikh Ahmad Bamba waaye seen ak bokk jiitu na sax loolu maa ngi gis lettre boo xam ne mamalaaji moo ko bind Cheikh Ahmad Bamba euh, moom itam mu tontu ko ca mamalaaji indil la ko maam Masamba Thiam ni mu nekkee woon ak maam Maharam lu yàgg la taarix bu xisa bu yàgg la bokk bu yàgg la ci gàttal rek euh, bay bi mu bindee sëñ Mbacke Bousso di ko wax ci loolu am lu ko ciy laaj daf ko daf loolu Cheikh Ahmadou Bamba sax ba muy tontu Mamalaaji yi moo ko njëkk a wax loolu ne ko li nga wax noonu li nga lim ci bokk gi ak jaar-jaar yi ci maam yi ni ñu àndaween ci yàlla ak ni ñu daan dimbalante ci yàlla suñuy maam ñun ak suñuy bàyyi noonu la ñu ko nettalee tawaaturan mm. noonu la ko Cheikh Ahmadou Bamba bindee ci lettre loolu ko wax euh, sëñ Mbacke Bousso bi muy wax baay dégg nga moom itam dafa feddali loolu loolu mag ñi wax dégg nga waaye euh, indi ci sax benn bayti ne ko warisna min al abaayi xafza euh, widaadikum wa nahnu ida mitna nu warrisul abna xam ne ne jotaay loolu tey jotaay loolu wax jooju tey moo moo diri sembaanam ci suñ kaw nii mbëggeel googu nga xam ne maam yi ak baay ñooñu ko ñooñu ko donnale eh, mu jaar ci baay bàyyi tax yi ak bàyyi ba ak ci tey suñu mag yi di ku mel ne Cheikh Mouhamadou Mountakha mi yàlla ko fi yàlla yàggal lool te may ko wér muy sakk ci lislaam di sakk ci bokk gi di sakk ci réew mi tey kaaraange itam eh, ba tey ci bokk googu ak bëggante googu sëriñ Saalix Mbàkke radiyallahu anhu dama fi ñëw ànd ak délégation boo xam ne sëñ Ali waajuru Cheikh Ibrahim mi moo ko jiite woon biñ ñëwee muy waxtaan ak ñun mënuñu eh, kër yi dina yëpp suñu mbokk lañ ñëpp suñu xarit lañ ñu ngi masalaa ak ñëpp waaye sama borom bi amul kumpa xam na ne fi ngeen agsi ci suñu xol yi kenn agsi wu fa fii am ngeen fi toog yoo xam ne su ngeen ñëwut suñ xewlee ñëw leen te loolu def naa du am kenn du ci toog nee ñu ñun suñ xew lu mu rëy rëy bu ñëpp ñëwee te gisuñu leen dafay mel ni kenn ñëwut waaye bu ñëpp toogee it ngeen ñëw dafay mel ni kenn manqué wut loolu la ñuy wax kawar te loolu dara war lu ko lu mooy ak ak mbëggeel dégg nga ak jëflante bu rafet ci diggante ay maam ak i baay loolu nag mooy mooy li nga xam ne moom kóllëre la gu ñu yàlla dénk la te yàlla ñu sant ne ne nañ sàmm kóllëre ndax danañu ko laaj eh, moo tax eh, bàyyi ñu ngi ciy góorgóorlu maam yaa ngi ci ñi ngi ci won bàyyi ñi ngi ci won ñi ngi ñu ko doonale tey nii ñu ñu ngi ci inshallah taala xal nañ ko donalé suñu dom ñi ngi ni té gannaaw Cheikh Madi mi ñi des ci délégation yépp suñu dom lañ té ñi ngi and ak ñun di dund li di ko gis euh, man dama na and ak soy mag ñu jité délégation ma di ci bok ba tay yalla def tay euh, mbolo bi may and di ñew fi ma ma ci maa ci mag ñoom itam inshallah taala loolu dañuy dañ koy continuer muy masira boobu xam ne laa tanqati'u abadan ndax euh, makaana kaana lillaahi daama wa tasal ama li ghayrillaahi te lii comme ci yàlla ko fas dafay continuer euh, wax naa léegi euh, sëriñ bi diggante li ñu sëñ Abdoulaye waxoon keroog bi ñuy defal El Hadj Abdoulaye Niass semaine culturelle ca Dakar dégg nga jëflante bu rafet bi ci sëñ Abdoulaye def lam ñu wax keroog ba ñëwee te sëñ Aadi jiite woon délégation bi la mu wax te jëfee ko loolu dafay feddali rek li nga xam ne moom la ko mag ñi bàyyi woon te loolu ku fi mën a nekku ne rek yaa ngi sàmm loolu e, ñun ñëpp ñu ngi ànd di ci góorlu di ko sàmm e, Cheikh Mahamadul Bachir ibnu Cheikh Ahmadou Bamba dégg nga diggante moo bàyyi kenn kenn du ko wax ñoom ñaar ñoom lépp lépp la ñu woon waaw lépp la ñu man sëñ Bachir yàlla def na toog naa ak moom toog naa ak moom xam naa ko bu baax suma wëlëree wajur la woon gannaaw sax mën naa wax ne relation Baye sax ak euh, sëriñ Bachirou mi ngi fàqee koo ci suma wajur boobu doon mag ci Cheikh Ibrahim nga xam dañoo den doon ñoom ñaar ci kaw gi foofu ci gannaaw ci boori ñoo war a dëkk yu ñu dëkkoon foofu sëriñ Bachirou daan bàyyi ko di ñëw di wéttali ko moom am na rakki sama papa boo xam ne sax moo ko yore woon wax ne ma ne ma sëriñ Bachirou pour xaritoo gom xaritoo woon ak sa wajur sax dugg na xaloo juróom-ñaari fan fii ci kër gi fii xam nga ak bokkoo ak olu ante mënta passé foofu mënta passé foofu e loolu mboole koog baay bàyyi sàmm ko lëre googu nàmm ko yëkkati ko lool ñuy jokkalante ci xam-xam sëñ Basiru lu ñu xam-xam la woon lu dem yëpp xam-xam la ko jox nga même sax eh, taarix bi mu mu bind ci Cheikh Ahmad Bamba mi ne lu baaxil xadim fii siirati xayril xadim eh, téere boobu sax dafa mën naa wax ma ne moo irwa unadim bi sëñ Ahmad Lamine Dagana dama bëgg a wax ne ku bëgg a lu bari ci sëñ Touba il faut nga dellu ci euh, ñaari ñaari majax yooyu moom nit ak xam-xam la woon dundam lépp ci xam la ko jeexal moo tax sëñ Mountakha lii mu mel nii ci liggéeyal xam-xam laaxar wa dafay wax mu ne loo yootu jotoo ko yónni ko sa doom waaye yaakaar naa ne eh, ruslawut ay maamam ruslawut itam ay baayam ndax ku gis na liggéey bu rëy bii mu def ci xam-xam ah ak seen jàppalante yéen ñëpp nag seen dimbalante waaw yow maa ngi lay wax léegi may la sa way sëñ Cheikh Mbacke moom laa gën a xam mhm. ndax moom euh, Baye daf koo jàppee woon doom jàppee ko rakk jàppee ko lépp ndax diggante sëñ Modou Moustapha ak baay loolu kenn kenn du ko a naatable ndax moom moo waral sëñ Modou Moustapha moo waral jokkoo Baye ak kër sëñ Touba ndax moo ko njëkk a invité Taïf ngan gu rëy boo xam ne taarix nga koy nettali ba léegi eh, loolu nag moo royaat dégg ci sëñ Cheikh royaat ba ci njabootam maa ngi guddal guddi ci wax ji euh, waaye Eh, dañuy wane suñ contenté fii suñ kër la duñ fi yëg benn tumuranke waaw duñ fi yëg benn tumuranke buñ fi ñëw toujours xam-xam yi nga xam ne ñoom la ñuy jàkkaar loolu rek buñu buñu bu ñuy delsiwaat ëllëg yooyu yooyu lañ fiy fekkaat loolu sant yàlla la bëggante ci yàlla àndoo ci yàlla la bokk ci yàlla la eh, ñu ngi ñaan yàlla sëriñ bi yàlla yàggal ko fi yàlla defal ko lim bëgg ci topp mi yëpp yaara bi eh, lim bëgg ci diine ji ak lim bëgg ci réew mi yëpp yàlla defal ko ko mooy yokkute ak lu baax rek ñu ngi lay gërëm sëñ Abdou di lay gërëm bu baax a baax a baax di gërëm sëñ Jassara mi maa ngi koy wax ne maa ngi lay suivre toujours ci média yi man am na ñoo ne bu ma leen gisee ci ci média yi damay damay jàll waaye toujours damay taxaw si moom di ko déglu ndax xam-xam lay wax li wax yëpp njëriñ la eh, fi mu bàyyi ko nag eh, ku fi ku fa mel lu mel noonu eh, duñu wax ne lii du tumaranke la moo tax ñu ngi évalué gi fii ci di kontaan di ndokkee itam suñu doom yi ñu àndal nii nga xam ne waxtu bu ñu jógee ñoom itam amuñ benn ngànt dañuy jóg ànd ak ñun gunge ñu ci lii eh, eh, mbaax rek la dara ndax yonentu moo ñu sant dafa bokk ci baax ak nit mu yokk ñooñ cofeel yi way juram waaw loolu moo ñu indi fii eh, ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah gannaaw bu ñu gu mag gi Cheikh Mouhamadul ci mbooloo mi di délégation bi bàyyi ko Medina Baye jógee ci kilifa gu mag di Cheikh Mahi xafisahullah xafisahum allah warahuma ñëw tey jii ci seen kër ndax fii mooy ka mooy Medina Medina mooy fii tey fii ngeen ñëw tey jii le shaar ba waxoon rek moo ci am nahnu duyuuf wa antum rabbul manzili noonu ñi fii ngeen fekk si dafa mel ni ñun ñooy gan ñi waaye yéen yéenay borom kër gi ndax fii seen kër la euh, sëriñ bi moom itam noonu la ko jàppee Cheikh Mouhamadou Mountakha xam ngeen ni ay ay jéegoom ak doxam yépp ba mu nekkee xalifa ak la ko jiitu ba léegi si xëy na léegi sax lañ ko xam bi mu nekkee xalifa waaye la jiitu xilaafa gi itam naka jekk doxin bu mel nii la daan dox xëy na nag bi mu nekkee xalifa dafa gën a fës nit ñi gën koo xam waaye moom yaar yi ko gën a ñor eh, mooy li ci jiitu mooy xam-xam ak kóllëre gi ak bokk gi eh, loolu itam dañ ko cee tarbiya ndax sëñ Cheikh Mahamadou Bachir mi nga xam ne mooy waajuram xam ngeen ni meloon ci bokk gi daanaka fu ne rek daana fay dem bi mu fi nekkee tey ma nga Tiwaawoon suba ma nga nga xam ne moom daanaka mook Serigne Cheikh Mbacké waajuru Serigne bi ñoom daanaka bokk gi liñ ci defar kenn xamul nu toll waaw fu ndax jaraloon ne leen lu eh, lii ngeen def tey nag mu nekk lu rëy rëy di yëg ak yëg sa mbokk toll ci ay diggante yoo xam ne xëy na diggante yu xaw a metti la yu tiis la nga yëg ko mu metti la na ko mettee ngeen àndandoo xalifa bi yónni leen ngir wone yëg googu ak itti jooju loolu sëñ bi bëgg na lool sànq bi ma demee ci moom maa ngi koy wax mu ne ma ñooñu day lenn lañu ndax diggante sëñ Bachirou ak Cheikh Ibrahim ñun ñi nga xam ne fekke woon nañ ko xam nañu ñoom ñaar ni ñu doon doxe ba gis nañu ndooroon googu nga xam ne fa la nekkoon di Touba Ndorong ak Medina ñoom ñaar sorewuñu e, demoon na ba egg si e, sëñ Bachirou daf laan wax waa Ndorong gépp bu julli ajuma jotee dem leen julli ji midina feek demu leen bañ ne amatu leen fi maanaam fees na ba amatu leen fu ngeen toog de dee leen julli ji foofu loolu nag dara gënu am solo ci buum yi yi nga xam ne mooy dëgëral diggante bokk gi ndax lislaam mooy buum gi gën a dëgër waxtasimu bi hablillahi jamian wala tafaraqu moom mooy gi gën a dëgër buñ ci jàppee rek lépp dana sotti e loolu itam ngeen dikk yëg xew-xew yi am ci dëkk bi ci ndox mi kilifa gi yëg ko taxawal boppam yónni leen yéen ñii rek kenn ci rek bu ko yónni woon doy na ñii fi teew kenn kenn képp doyoon na ci yéen waxuma laa nag délégation bi ni mu toll ñoom ñëpp di ay bokk euh, àndandoo ñëw loolu rëy na lool am na solo lool lool lool lool lool ci moom ndax ndimbalante gi ñuy wax ci wàllu lislaam alxuraan digal nu ko loolu dafa mel ni bis bu ñu ko jëfee rek ni ko yàlla diglee muy alal birri wa taqwa bu ñu ko defee léppay léppay baax kon loolu mooy li nga xam ne moo xaw a manqué ci jullit yi fi mu ne nii ci àdduna si taawun boobu suñu borom digle ci alxuraan dañ ko dañ koy jàng waaye jëfee gi des waaye yéen li ngeen def loolu moo koy jëmmal loolu moo koy dundal loolu mooy tax itam euh, mu nekk loo xam ne day wéy ba faw jógee ca maam ya ba ci bàyyi ni ko sëriñ bi waxee léegi di wéy ba ci njaboot gi ak sët yi yëm ñëpp egg fi eh, loolu nag gis ngeen euh, diggante Medina ak euh, fii yàgg nañoo ànd ci yu bari boo xoolee diggante Serigne Cheikh Mbacké ak Serigne euh, Cheikh Ibrahim ñoom ñaar bi ñuy def rabitatul alami islami ci Makka te boobu jamono bi sax melagul nii mel nii léegi nii mu ubbi ko léegi melu ni woon waaye ñoom ñaar yàlla dogal na ci Sénégal ñoom ñoom lañ gën a gën a xam foofu ngir yëngutu yi nga xam ne moom lañ daan yëngu ci instance yu mag yi gën a kawe ci euh, alamul islam yi ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñoo daan taxawee loolu ñoo daan def loolu loolu lépp nag ndegam dañ koy def ba di koy yóbbu ci bitim réew di di gën a dëgëral bokk googu waxuma laa nag li nga xam ne mooy bokk gi nga xam ne moom lañ am ci biir réew mi loolu moom ñëpp xam nañ ko loolu yi sëriñ wax léegi ne buñu bu fi dara xewee bu ñu leen jisu day mel ni gisuñu ñu bari waaye bu ngeen teewee day mel ni ñëpp ñëw nañ loolu wallaay mooy li nga xam ne moo am loolu mooy li nga xam ne ñun ñëpp moom la ñu euh, jàpp bu baax a baax bokk googu nag moom rek moo mat a taxawal moo mat dëgëral ndax toll nañ ci àdduna foo xam ne sëriñ bi moom xam na ko sëriñ Cheikh Mouhamadou Mountakha moom dafa xam loolu lool te yàlla dimbale ko mu am kóolóore ak wafa digganteem ak xaritam digganteem ak bokkam li mu ci àttana taxaw da ngay dem ba mujj yàgg sax yenn saa yi da koy yërëm ndax li ko ak bokk jaral li ko ak xaritoo jaral li ko nit jaral ci ci ci ci wàllu gune euh, bis bu ne ñun ñi nga xam ne waxtu wu ne noo ngi nekk ak moom dangay ngay dem ba egg ci boo xamante ne sax da ngay xam ne lii moom xanaa lu ko suñu borom dimbalee la waaye yëmbut loolu nag moom mooy jikkoom te itam mooy taxawaayam rawatina seen diggante ak moom kon li ngeen fi indi tey eh, muy loo xam ne dangeen ko indi ci seen kër eh, loolu dafa mel ni seen lu ngeen fab rek dugal ko ci kër néeg boo xam ne dafa nekk ci biir kër gi muy fukki million yoo xam ne kilifa gi joxe na ko ngir jàppalee ko sëriñ bi ci liggéey bi nga xam ne moom lay liggéey ci dëkk bi di fas yéene dimbale nit ñi ñi nga xam ne dañoo loru ci wàllu mbas mi nga xam ne ay junni junni junni nit lañ bari nañ lool mu fas yéene ñoom ñëpp mu bu bu bu ko bu mën a day day day fexe ba ñëpp kenn ku ne la nga ñàkkoon lépp dafay fexe ba mu dellu siwaat ci yow loolu mooy li nga xam ne moom mooy bëgg-bëggam dégg ngeen ko bi muy wax wax na ba egg si waxuma sax lu ñu dundee waxuma leen waaye sax fexe ba mu tabaxal leen ay dëkkuwaay yoo xam ne ñoom ci seen bopp dañ koy dëkkee loolu lépp bokk na ci ay mébétam ñi nga xamante ne moom la bëgg ñu def ko moo tax nag it Ah, bi mbir mi amee mboolem euh, turuxu suufi yi nekk Sénégal kër yëpp yëg nañ ko te loolu dafay mel ni sax lii li ñuy wax ni amatul fii fii fii niqama lay niru ndax bokk la niru ndax bu mbir mi mel na ni metti na waaye bi mu amee gis nañu bokk yëpp àndandoo comme ni ngeen def tey ji jataay bi jataay bi tey dëgg la bëgg nañ ko waxtu wu ne waaye sabab bi muy sosoo ci loolu di niru ni xama tey moo indi jotaay bi bu neex bu rafet bii ak kenn neex lii mhm. ngeen def ak sëriñ bi tey jii loolu lu am solo la kon loolu nekk na loo xam ne sëriñ bi bëgg na ci sëriñ Mountakha bëgg na ci lool lool kon loolu itam ñu ngi leen koy jottali bu baax a baax di leen ne daal fii jotaay bi euh, fii moom seen kër la fii mhm. seen kër la mhm. ndax Euh, Cheikh Ibrahim ja euh, digganteem ak Cheikh Mamadou Fadil ñun xam nañ ko man xam naa ci dara man bari xëy na mënu ma toog fii di ci wax waaye xam naa ci dara waaw digganteem ak Cheikh Mahamadou Bachir am naa lu ma ci xam euh, te ni ko sëñ bi waxee léegi dafa jiitu yooyu yëpp ba tafsirul jalaalayn parce que ñoom mag ñi xam-xam rek moo leen ñoroon mooy li nga xam ne moo leen itteeloon ba téere boobu nga xam ne mooy tafsirul jalaalayn nga xam ne ma def naa maam Alaaji moo ko joxoon sëriñ bi. sëñ Tuubaa ko joxoon waaw mm-hmm. maam Alaaji. Mm-hmm. mu wax ci wax ju rëy ñaari bayitam yëm ci wax. Mm-hmm. muy yoo bayit yooyu rek doy na sëkk sëkk sëkk sëkk ci seen diggante ñoom ñaar. muy euh, won ko ne ko tafsirul jalaalayni bi ta tafsirun li mansibiku jalaalayni bii bii bii nga ma jox tafsirun li mansibikum fi ngeen toll ci yàlla moom la nuy woon moom la nu téere bii di woon loola kawe na lool Moustapha bi muy waxee euh, kawe na lool lool lool lool tax na loolu itam nekk na loo xam ne te lu am am solo la euh, te lu luñ dul fàtte la moo tax lu baax lu am solo la kon lool itam ñu ngi koy fàttaliku bu baax a baax a baax et man nag ma ko bég ci ndax suma njaboot dañoo nekk foofu ma bokk ak ñoom sama jarwaate yi nii toog maag waajuram Ndey Awa Eh, suma suma jigéen la ah tey jii ñoom ñii samay jarbaat lañ kon loolu itam dafa nekk loo xam ne lu ma gën a bégloo la lu gën a sedd suma xol la ndax eh, deret yu jaxasoo dafa am solo ci ci ci dëgëral bokk dëgëral ak mbokk loolu itam eh, moom waajuram itam nekk koo xam ne man dafa nekkoon suma xarit waaw ndax bi mu nekkee jidda ci consulat bi foofu fekk dama daan dem foofu lu gën a bëri waaye ma di ko fekk mu nekk nag borom xam-xam moom xam-xam lu bëgg lool waxtu wu ne rek day woy waxtu wu ne day bind waxtu wu ne mi ngi bind Baba Lamine mi ngi bind waxtu wu nekk mi ngi ngi def ay ay ay abyaat man li ma yor ci lim ma jox ci luñ bind kenn xamul toll yàlla dogal te muy suma xarit ba noppi nag ah yàlla dogal suñu diggante itam mu nekk ci suñu biir Ibrahima Mahmoud Diop nekkoon sama xarit lool. amoon na jamono yoo xam ni boobu maa ngi kawlax maa ngi nekkoon ci école Serigne Mourtala bi nekk uh, Ndorong amul benn ajuma maa ngi jullee foofu lay jullee maa ngi jullee ci Médine laay jullee waaye bu ñu jullee ba noppi këram la ñuy dem di waxtaan ci xam-xam ba daanaka timis ñu door dem mu nekkoon suma xarit lool lool lool di ku baax te borom xam-xam musaqaf boo xam ne adduna sëpp xam nañ uh, taxawaayam loolu lépp nag ay mbir yoo xam ne bi seen dikk gi tey day gën a jëmbal loolu eh, Cheikh Abdou mi nga xam ne tey itam moom mooy doomi Serigne Cheikh Mbacké di koo xam ne itam taxawaayam ci wàllu googu ambassadeur la moom itam ni ay maamam doon taxawee rek lay taxawee maa ngi gis ñëpp ngi gis yëngatu yi muy yëngatu ci foofu waxtu wu ne ma nga fay dem am fa ay xarit ñoom ñëpp daanaka xam naa ne ñam fa xarit loolu bariwul waaw te it loolu mi ngi koy dox te loolu lu neex sëriñ bi la lu neex Cheikh Mouhamadou Mountakha la Cheikh Mountakha bu sa yoon fenn fu ne ma nga fay moo fay demal boppam <laughs> fu ne bu sa yoon mooy doxal boppam fenn fu ne dem loolu moon xam naa ko ci moom tey kon kuy dox yu mel noonu rek moom nga doxal te it loolu day nekk mbégteem day nekk euh, lu mu bëgg loo xam ne saa su euh, xam ne day gën a dëgëral bokk gën a dëgëral lépp kon daal maa ngi leen di gën a jottalil euh, sëriñ bi bu baax a baax ne daal tey kendal li neex na lool kenn lu am solo la ndax kenn la gu jokk bokk xaritoo euh, xamante ba nga xam ne lii day nekk loo xam ne yàlla na ko yàlla gën a mu gën a jëm kanam ba faw saa su rek bokk gi di gën a yees cofeel gi di gën a yees ba ci sët yeeg doom yeeg ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa yàlla na yàlla fajal ñu maanaam